jamono bi ñuy génn ci réseau sociaux yi di attaqué kilifay diine yi jur na ak naqar ci kilifa yi nga xam ne dañoo nekk ci daarul moxti loole moom moo waral Serigne moom Serigne Mountakha daal di organiser benn marche pacifique ànd koog mboolem kilifa yi ngir naqar lu ni mel. li ñu fi dajale nag mooy dafa am ku ñuy wax ku nekk ca Gabon ku ñuy wax Ousmane Ba dafa def benn audio. fukki audio ñeent sax la def. wax ci wax ju ñaaw ki nga xam ne mooy sunu yaakaar muy Sëriñ Tuubaa te sa wax ja ba mu koy wax pour bëggul lu ñu naqari da koo tàmbalee ci soxna Jaara Buso wax ja wax joo xam ne kenn mënu koo dégg mooy naqarlu kaddu yi nga xamante ni gaa yi yu bari dañuy génn ay audio di daal ci kaw sëñ mag bi di daal ci kaw mag yu baax yi nga xamante ni ñoo fi nekk te fii képp ku fi jaamu yàlla wala ngay julli wala ngay jàng alxuraan mën naa ni mag ñoo ñoo ci fi buñ fi amutoon loolu du boo digloo seen i audio yi dëgg dëgg dëgg lii seen yitte mooy faagaagal mbooleem ku fi ab xalifa seen ro lii seen dëgg dëgg dëgg dëgg mooy li lay xamal ne nekkuñu ci dëgg téere bii bëgg naa caméra yi ngeen jëlal moo ko téere bii mi ngi tudd asawaaxiqul ilaahiya fii raddi xalal wahaabiya magam ju mbokkal ndey ak baay di Cheikh Souleymane ibn Abdul Wahab moo ko bind ngir doon contrecarrer Abdul Wahab mais téere bi ñoom duñ ko móol duñ ko tasaare fan yi lañ ko commencé móol te dañ koo das loolu kon ñoom ci ay tappale lañ léegi nag fi may tëjee mooy yàlla def na ci sutura ndax bërki démb ci 14 heures moom kañuy wax euh, Ousmane ba mu teg nañ ko loxo mhm. yàlla dimbali na ma itam samay gëstu fexe naa ba dugg seen groupe te yëguñu ko ñoom ñaan nañ président de la république Macky Sall mu jël ay responsabilités am ngir saafara li nga xam ne mën naa jur jee ci réew mi. saaga ya xasta yi daal lañ bëgg maanaam mu yem fi képp koo xamante ne ni yaa ngi doon waaj wala yaa ngi doon jéem wax lenn loo xam ne naka suñu sëñ mi bis boo ko defee ñun suñu bakkan lañ lay jaayee ndax suñu tubaab jaral nañu suñu bakkan lu ñu am waaw waaw suñu tubaab moom jaral nañu suñu bakkan moo ñu gënal suñu jëmm. moo ñu gënal suñu jëmm moo tax ñun ñëpp ñu daje fii di naqarlu kàddu yooyu di interpeller gouvernement bi nag moom mu dox suñu diggante ak ñoom ñi nga xam ne ñoo fi nekkal réew ñoo fi ñoo réew mi ñu ngi wax ñu dox suñu diggante ak ñoom ndax kenn ku ci nekk ni ma koy waxee man ngaa ne la nga nekk te doo saaga kenn doo xas kenn alxuraan sax yonente bi da koo waxoon ni ko yéefar yi seen seen seen euh, xërëm yi bu leen leen yi ndax bu leen leen ŋàññi ñu ŋàññi la te di ngeen amul leen naqar yi loolu loolu la loolu la alxuraan waxoon yonente bi kon kenn bu nekk mën ngaa nekk te la nga nekk te doo saaga kenn doo xas kenn ñu ngi sant ñëpp ñu bëgg état bi dox suñu diggante ak ñoom. bëgg nañ ci itam saafara ki nga xam ne ci njëkk a woo itam mooy ki nga xam ne mooy njiitu réew mi mooy Macky président Macky ñu ngi koy woo ci lii na ko saafara ndax lii jëmewul réew mi ci jàmm. ginnaaw waxtaan wi ñoom mboolem kilifa yi amal nañ doxu ñaxtu ci biir Darou Mouhty ñu jeexale ko ca sous-préfecture ba jëbal ki nga xam ne moo di sous-préfet bi seen mémorandum te ñaan mu jébbal ko président de la république. tey ñaan ko président de la république xam ko ne ko danoo bëgg a sàkku ci moom mu wut statut boo xam ne au dana mën a défendre kilifa diine yi ba képp koo xam ne dal na seen kaw maanaam yoon woowu mën a sa kaw. ndax su ko defut mën naa andi ak fayonte nit ñi di fayul seen bopp te nit bu saafara la boppam day ëpp moo tax yaakaar naa ne wutaloon loo xam ne kilifa diine yi képp ku dal ci seen kaw ñu mën a dal ci sa kaw yoon mën a dal ci sa kaw ci yoon denc la ba nga xam ne bu ëllëgee sibree sa morom da xalaat def lu mel noonu loolu yaakaar naa bokk indi jàmm ci réew mi kon nag ñoo koy sant di ko ñaan mu wut benn boo xam ne nii day taxaw défendre kilifa diine yi ba képp ku mën a dal ci seen kaw yoon mën a dal ci sa kaw foo mën di fekk na la ko jàpp la su préfet bu Daarul Muxti dalal na seen xel ne dañu ko jébbal kilifa yi te lii nga xam ne mooy xew ci réew mi daañu ko saafara. kon nag leen métti moo métti ñëpp parce que euh, président de la république dañ ci wax ne tarixa yi tey euh, confrérie yi tey ñoo ñoo téye ñoo téye Sénégal jàmm ji nga xamante ne mu ngi fi am. Euh, ñu ngi koy euh, sante euh, kilifa yooyu nga xamante ne ñoo fi saxal diine bi ñoo amul lenn lu ñu mën a jàngal leneen di ko jëlee feneen di ko fi indi ndax mag ñi liggéey nañ ba ñun ñu fekk ko fi di ci jaar te loolu moo ñu sàmm ba fi amul lenn lu ñu mën a jàngal na lépp matale na kon nag euh, ñi nga xamante ne tey ñu ngi jël ay kàddu yu ñaaw di ko teg seen der kon ñëpp la métti naqare na ñëpp. Euh, mémorandum bi ngeen def dañ ko àggale fañ ko war a àggale ñu ci war a def dañ ko def. Serigne Abdou Lahad moom Serigne Mouhass ak kilifa yi nga xam ne ñoom la àndaloon ci joxu ñaxtu bi ñoom nee ñu daañu taxaw temm ci aar mboolem kilifa yi diine yi nga xam ne ñoo nekk ci réew mi ci mboolem wax ju ñaaw ji nga xamante nii nit ñi ñu koy wax ci réseaux sociaux yi.